et particulièrement téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi suivre Elvision Media Média di ko jaarale ci sa loxo di nuyu kenn ku ne fa nga toog ma jox la sama loxo di la baalu ax ci weer bu sell bi mais di la baal ax di ñaan yàlla na yàlla nangu sunu koor yàlla na yàlla nangu sunu jàmm yàlla waaye yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi mais di beral loxo nag sunu kilifa bokk muy xalifa Ababacar Sall di ñaan yàlla na ko yàlla teggil natt ba mu dellu si parmi nous. voilà donc. Euh comme je mala dit, ko on dañuy souvent le pionnier le pionnier man nag turu pionnier bobu bëggoon naa xam fan la pionnier ».« ak lan mo indi le pionnier. waaw xam nga pionnier soo demee ci dictionnaire bi daf koy définir comme un éclairé. C'est quelqu'un qui montre la voie C'est quelqu'un qui est engagé sur toute chose C'est un exemple mais un pionnier bi mi ngi le mouvement national des pionniers du Sénégal yàlla dafa defal à bas âge ñu bokk ci benn mouvement socio éducatif qui xam ne la promotion de la citoyenneté mais aussi l'encadrement des jeunes mon le mouvement national des pionniers du Sénégal et par amour à ce mouvement je jël sama tur que ci nag Sàmm les pionnier parce que damay wax ni euh, bépp engagement bu ma am formation bu ma am à part la formation académique mais c'est grâce à ce mouvement donc je bëgg ko lool nag ci sama xol mu gënal ma lépp ma ma pionnier et au-delà de ça moi, je veux être un éclaireur dans toute chose bon xam ne dama ci engagé exactement c'est clair donc euh, mën nañu jàpp ne depuis tout petit monsieur Samb y a dox ci développement y am amour éclairé, amour participer ci développement ba tax mu am tay turu le pionnier ñu gis les tout de la top ci sa parcours ba tey ak ci lépp def alors avec la naissance euh, de des jeunes pionniers hmm. donc ça li voir waxtaan xamal nga ma ne mouvement des jeunes pionniers nous ñu bëgg xam le mouvement bu njëkk bi la wala mouvement bu bees la boo xamante ce tour tur bi moo la topp ba ngeen am waaw xam nga pionnier damay faral di wax boy def histoire histoire mouvement des pionniers c'est étroitement lié avec le Sénégal parce que c'est bien avant les indépendances euh, plus précisément en 58 le président Senghor avec le président Modibo dans la fédération du Mali. ils avaient pensé que amoon nañ à côté liñ doon wax MNJS mouvement national des jeunes de l'union Progrès Sénégalais, MJUPS Pour nous, c'est des jeunes qui ont une mission c'était de la politique mais à côté il fallait mettre une structure qui occuper aspect culturel l'aspect socio-éducatif ci la ñu tegoon doon mouvement national des pionniers du Mali mais tout le monde sait que la fédération du Mali euh, euh, n'a pas trop duré en 60 éclatement le président Senghor avait jugé utile de mettre en place au Sénégal à côté du MJUPS le mouvement national des pionniers du Sénégal qui est la branche éducative la branche socio-culturelle qui est affiliée au niveau des jeunes socialistes donc que le mouvement national des jeunes des pionniers du Sénégal jóge ñun may en 2003 étions à l'école Grand F2 avons fait la connaissance d'un homme qui est devenu aujourd'hui le maire de Grand F et c'est par le biais de lui que nous avons le mouvement pionnier parce que je connaissais ay jarbaatam Donc, nous avons souvent ak mouvement des pionniers ba avons def la connaissance du maire nous avons mouvement bi encadré ñu ci mouvement au niveau de Grand encadrer nos jeunes frères mais c'est un mouvement qui se trouve un peu partout dans les régions du Sénégal mais aussi au niveau international. d'accord d'accord hmm. alors Samou, hmm. tey bu deuxième question c'est depuis quand nga êtes ci politique et pourquoi vous avez fait le choix. Hmm. d'être à côté de M. Khalifa Ababa wa bu bu eh, leçon c'est la suite continuité mm-hmm. parce que mon engagement ci mouvement pionnier du Sénégal def naa un prolongement de mon engagement ci parti mm-hmm. parce que tout le monde sait que le mouvement des pionniers est un mouvement affilié au parti socialiste. donc dès le bas âge nous dem fréquenté fréquenter maison du parti mais antérieurement j'avais une famille. qui bu am relations avec le parti socialiste. Mm-hmm. dès le bas âge ma gis ni eh, bu élection daan am ma gis au niveau de Touba su maam amoon relation avec ku ñuy wax maam Bounama Sall nekk secrétaire national chargé des finances du parti socialiste dañ doon gaare oto yi parce que à l'époque Touba kenn du fu voté ñuy gaare oto yi dem di voté ji di ñëw ñu indil ñu bulletin yi ñu environnement boobu ñuy gis ay photo Ousmane Tanor Dieng di gis photo président Abdou Diouf yàlla dogal bi ma duggee mouvement pionnier tam euh, di ci engagé wu à côté du maire Madiop ñu ni ah comme def nañu engagement lañ wax te am na loo dañ ko jàng ci mouvement bi on ne doit pas rester les bras croisés. Il faut que nous mettions maintenant un engagement. Engagement, il fallait le faire dans un parti. Mais il fallait nous répondre aux normes Parce que nous avons les valeurs que les pionniers. Nous avons souvent euh, partage, nous avons justice, nous avons solidarité. Nous avons le Parti Socialiste aussi, valeurs il les donne prôner. Parce que la social-démocratie aussi, je vais beaucoup résumer, c'est les valeurs africaines, c'est les valeurs du Sénégal. Moi, Ngor, moi, suis moi, Djom mu répondre avec partage équité justice ñu gis que nak parti socialiste moy parti bi nga incarné valeur ba c'était pas tout facile parce que c'était un parti d'opposition à l'époque il n'était pas donné à n'importe qui de dire que man parti socialiste l'a bëgg parce qu'on avait en face de nous le tout puissant Abdoulaye Wade donc yalla def ñu dugg ci parti bi par le biais du maire Modjo def connaissance su euh, le président Khalifa Ababacar Sall ànd ak moom nag di xeex parce que à l'époque ben fonction amul opposition la nékkone eh, jeune bu nangoon a dugg parti bari bari na ñuma doon wax sax à l'époque da ngay font yow naka ngay gisee parti au pouvoir di dugg ci parti socialiste mais c'est parce que valérie yi ma doon man ak orientation yi ma gëm n'a ni amul benen parti bo xamni ni nako na mm, nak fa budul parti socialiste du Sénégal. en parlant de valeur et de justice. Mm. donc euh, tay valeurs yi la incarné won ba nga dugg ci parti socialiste. Mm est-ce que mën nañu jàpp ne tey même valeurs yi ñu ngi fa parce que souvent ñu ngi gis un problème mm-hmm. interne ci biir parti socialiste mm-hmm. mu nekk problème boo xam souvent dina jaaxal nit ñi ndax dañuy ne mm-hmm. d'habitude du ñoo xamante ne ñoo bokk parti ñoo xeex seen biir mais récemment gis nañu ne c'est un problème qui persiste et ñu bëggoon xam est-ce que yow valeur yooyu la dugaloon ba tey yaa seen valeur yooyu ci biir waaw tey nag dina dina jafe ñu wax ni valeur yooyu mi ngi fi ba tey mais soo gisee ku mel Khalifa Ababakar Sall ñu am jël suñu courage à deux mains And ak mom c'est parce que gis nañ ni valeur yi nga xamni ñun moo ñu taxoon dugg ci parti bi xex bi nga xamni mo taxone ñu doon xex ba jàkkaarloog Abdoulaye Wade aujourd'hui c'est quelqu'un bo xamni tay il est resté constant dans sa démarche même si la direction du parti socialiste a complètement dévié parce que parti socialiste bi ñu xamone ak bi ñu xam tay bokul amna ci ño xamni ay gor lañ amna ci ño xamni tay fat parti bi jogé won ci président Senghor président Ibrahima Seydou Ndaw ci loolu lañ def Khalifa loolu lañ gis ci moom moo tax ñu ak moom contrairement à la direction du parti qui a euh, préfère aujourd'hui la soumission mooy dem jébbal seen bopp nguur gi fàtte valeur yi fàtte Sénégal yi ñun nag ñu ni bu ñuy dee rek nañu dee ci sunu ngor parce que mënuñu wax lii tey démb tey ñu changé ko te Serigne abdoulah mo mu baax ma daf doon wax ni gor fi ñu koy xamee mooy waxi démb méngoo ak kàddu tayam nee na soo demee ba sa waxi démb ak sa kàddu tey ñu mën ko tàqale mën ngaa jàpp ni kooku du gor Et ñun nag dañu bëgg nous ak wow. ngor. ballon de soumission comme nous l'avons mm. la direction ñu ci bëri dem nañu. Mm. ci au pouvoir. Ah. mais des du def vous avez dit ba Vous seen leader problème bi nga mën nañu jàpp ne lu juddoo ci parti socialiste la wala problème boo xamante ne c'est parce que moom bëggul bokk ci ñi nga xamante ne dañ dem rejoindre parti au pouvoir waaw je pense que prolongement au parti socialiste la mais avant cela j'aimerais juste euh, marquer une chose boo xam c'est l'histoire qui se répète parce que mag ñi nettali nañ ñu bi ñuy taxawal le parti le parti socialiste en cette à l'époque c'était le BDS BPS ba UPS le président Senghor était avec le président Lamine Gueye à un moment donné d'accord tuñu Senghor était sur le point d'abandonner sa vision, était sur le point d'abandonner son engagement politique. Il est parti rencontrer le feu président Ibrahim Seydou qui était à l'époque président du conseil mu fekk ko ci lalu hôpital l'hôpital, ne ko président man kat li taxone may politique tay gisatuma ko je damay bay ñu ni président Ibrahim Seydou à l'époque mi ngi toogoon ko problème. wax Léon Bleu moom ni espoir bi Sénégal am ci yow ak bi tu n'as pas le droit d'abandonner il faut nga tu and yoon ak c'est ces conditions que le président Senghor créé donc ñi le parti socialiste c'est un parti qui est né dans l'opposition donc histoire mooy répété aujourd'hui. Khalifa accueilli accueillir Tanor ci parti Il a na ba tey àndatul ak Tanor gisul li nga xam ne moo parti socialiste jóg Tanor doxal ko mu jël responsabilité en deux mains daan na ñun du ñu bàyyi de mais dootuñu avec la direction parti parce que quand ñuy ànd ak Macky Sall en 2012 dañu le candidat le mieux placé au second tour dañ koy soutenir mais biñu ko soutenir ba mu fallu parti social dafa waroon jëlat liberté mais ñu gis ni gaay yi nanguwuñ ko mais ñu gisaat ni lepp lo xam dañ ko doon bañ ci Ablaye Wade mais tay Macky Sall est en train de faire pire xex bobu lañu commencé ci sunu bir parti mo mo prolongé wu ba ci biti parce que li dal Khalifa tay il faut citer Macky Sall mais il faut citer Ousmane Tanor Dieng et complice parce que bu Khalifa bu ko Macky ñemee tay def yenn c'est parce que le parti socialiste à un moment donné en tout cas une bonne partie du parti socialiste dañu accepter ranger wu ci ginnaaw Macky Sall parce que ce que nous plus important, c'est dem ni Macky Sall ah. aujourd'hui ñi ah. mais le Sénégal avant tout Exactement, le Sénégal avant tout, Moudi Moyou mm. Amsolo, vraiment, mm. euh, je rappelle que nous sommes actuellement avec euh, Bassirou Samb, le pionnier, donc euh, un des amis de Khalifa Ababakar Sall. Ou bien un des fils de Khalifa Ababakar Sall. Mm. un des fils et amis de Khalifa Ababakar Sall. D'accord, donc nous sommes un des fils de Khalifa Ababakar Sall. Nous disons souvent euh, ci sorte yi nga xamante ne mu ngi def dañ lay gis ci wetam. Mhm. donc ma bëggoon xam tey sa complicité ak moom seen connaissance. ak mhm. euh, relation bi ngeen am euh, comment ça s'est s'est passé. waaw xam nga Khalifa en général léegi bu may dama koy wax souvent ni dépassé nañu relation leader ak militant. Mhm. dépassé nañu ay camarades mais papa la ak doom. parce que yàlla dafa dogal ñu ànd ak moom avant bi bi ay 2003 2005 c'était très difficile yàlla def ñu ànd ak moom ba mu jël maire bi en 2009 yàlla mayaat ko mu jëlaat ko en 2014 ñu gis ci moom ay ay valeur gis ci moom ngor gis ci moom ku gëm yalla waye gis ci moom lu raar ci politique moy nit la ko xamni bu la waxé dara rek jappal ni dina ci ku tubéyam lo wax nak def ko dina jafé seigne Cheikh Gaynde fama daf doon wax ni luma wax def ko yalla ko man waye luma def wax rek dina ci jëm yalla daf ko may valeur yooyu donc ñuy waxtaan ci lu bare bare di échanger ci bare bare bëri muy doon ko ñu respect aussi parce que leader politique bi ci am li ci gëna neex mooy lan saa yoo ko soxla gis ko saa yoo waree waxtaan ak mom mu déglu la yalla may nañu loolu ci mom tay ci combat bi ñi combat ba fa mu nekk saa yu ñu demee dañuy tok di waxtaan ak mom échanger ak mom ñu gis ci mom quelqu'un bo xamni ku bëgg Sénégal ko xamni Sénégal rek moko ñor et malheureusement je dis que Sénégal xamaguñu carrément Khalifa parce que aujourd'hui c'est le secteur général de l'association internationale des maires JT CESELUA JT City Alliance ñëpp xam nañ ni tubaab boo boo ko boo ko jiitee am problème ak justice li muy a def mooy la mais Khalifa bi ñu ko jàppee dafa lettre pour démissionner de toutes ces structures ñoo ñu bañ ni ko on te maintient six mois après mu defaat ko ñu ni ko on te maintient Ils ñu ko condamné barki démb AMF dafa dajewaat ni on maintient Khalifa.

macha allah gàddu mm. donc ci li nga wax légui léegi. Euh, ne même bi mu amee problème. ba tey ñu mm. né ko amna yenen fonction yo xamné mu ko don occupé yu bokkul ak politique. Mm. té amana nekkatu fi mais ñoñu dañ ko fa bëgg a téye ndax li nga xamante ne mooy euh, engagement responsabilité ak compétence yi nga xamante ne ñu bëggol xam à part politique parce que tay ñu bëri sama genre gi khalifa euh, politique lañ ko xamné à part politique monsieur Khalifa Sall quelle fonction la euh, la am hors politique. Khalifa il faut savoir que c'est un consultant de la Banque mondiale c'est un expert électoraliste aujourd'hui Barina élection élection Afrique Khalifa Sall dañ koy mu dem et au-delà de ça c'est un professeur de formation c'est sa formation mais aujourd'hui sur le plan mondial c'est un modèle en matière de bonne gouvernance c'est un leader sur la question des collectivités locales n'est pas donné à n'importe qui aujourd'hui d'être le secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones. C'est le président aujourd'hui de Sejolia, Afrique, qui regroupe aujourd'hui l'ensemble des élus locaux d'Afrique. moom mooy président d'Afrique du vice-président au niveau mondial Cité Alliance nekk kuréel goo xam aussi dafa tënk ay villes yu nekk ci bi Khalifa Sall et la banque mondiale comme le système des nations unies dañu koy solliciter lu baré, baré, baré expertise mais aussi consultance yu bëree bëri yoo daf koy def donc c'est quelqu'un qui ne vit pas de la politique parce que ñun yàlla def na biñu biñu bi ñu nguur 2003 ba 2009 ñi ngi àndaat ak moom ñu gis ni daf doon dem di liggéey daf doon wax ni nit fay am métier parce que xamal tax bu élection bu politique jallé nga mën continuer motax bi digënté boobu ñu traverser du désert daf doon continuer di def consultance au niveau mondial tay biko yalla défé mu yorat maire yi empêché wu ko mu continuer liggéeyam parce que day nit ñi dañ koy tooñ yow da ngay tukki lu bari mu ni non parce que dama yor ak njabot di liggéey donc sama liggéey la yaakaar pour dundal sama njabot donc c'est quelqu'un boo xam aujourd'hui sur le plan mondial en tout cas quand on parle des collectivités locales il est cité en modèle il est cité en référence effectivement beaucoup télévision Média comme ni ngeen ko alors kon man ma and rek ak téléspectateurs yi découvrir ndoo li nga xamante moy fonction yi am solo yi Khalifa monsieur Khalifa ababakar Bakar di occupé yu xamante bokul dara ak politique donc mon nañu de né déjà c'est un homme engagé responsable dynamique mais travailleur travailleur et qui ne dépend pas tout simplement de la politique ndax liñ fi wax yépp yombul nit a ko ba qui dal di mën amat amaat yenn ci politique mm. de di bolé lépp té mu am succès alors euh, la question qui se pose la question qui taraude l'esprit des Sénégalais actuellement li nga mom lañ bëgg xam mm. est-ce que euh, la candidature de monsieur Khalifa Bakar Sall est retenue est-ce que moom mën na candidat au présidentiel Retenu, retenue c'est trop tôt de le dire mm. mais li ñuy jàpp à notre niveau c'est Khalifa Bakar Sall notre candidat te ndaw yi ànd ak moom le 12 mai passé investir nañ ko semaine ba la ñu génn ngeen gis 45 départements yi donc may rassurer militants yi sympathisants yi sénégalais ni leen xalifa Ababacar Sall est candidat de la coalition taxawu Sénégal ak xalifa président te fan yu néew daañu dugg ci réew mi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen en tout cas c'est lui qui portera nos couleurs ci élection yi nga xam ne ci lañ jëm même bu dee xam nañ ni euh, ñi ñu ko seqal tey seen pexe yépp mooy éliminer ko ci course bi waaye nag defe naa ni eh, bari pexe du pexe da fexe rek ba sa pexe méngoo ak bu yàlla. bari pexe du pexe fexeel sa pexe méngoo ak bu yàlla. Mm-hmm. am na solo mm-hmm. alors euh, tey ñu gis. Mm-hmm. moom bi nga xamante ne mu ngi euh, ñu ngi def élection législative yi moom. Euh, amaana ni ci gars yi libéré woon pour mën a dawal seen ay activité pour mën a def seen campagne amu ko te teewul Euh, il a été élu député élu maire il a été élu député donc si vous dee candidat bi retenir est-ce que vous comptez y aller avec les mêmes stratégies pour def ko euh, le président même si nous ñu ngi ko téye euh, ñaanuñu ko yàlla ndax ñu koy ñaanal ci li mu di mais si dee loolu nous ñu retenir candidature comment vous comptez faire vous préparer pour les élections ce que nous ñuy ñaan mooy yàlla def avant ànd ak ñun wër Sénégal mais aucun cas échéant mu nekk fële ak mu nekk ci biti il sera notre candidat parce que ba mu fay dugg wax naa ko ci benn rajo ce matin titre maire kese la fa duggee tey député fa la ko fekk député fa la ko fekk te li ñu gëm tey mooy Sénégal moo soxla Khalifa Sall Sénégal moo am yaakaar ci Khalifa Sall parce que dafa jël ville de Dakar en 2009 c'était pas du tout facile un opposant gagné ko xam nga gagné bu ñëk en général ci politique dañuy faral di wax ni yomb na mais gagné à a bilan moko tax gagné et tout le monde sait que bi en 2014 c'était pas tout évident on avait en face de nous un premier ministre on avait en face de nous tout un pouvoir mais Dakar waaye ni ko yow yaa ñu doy parce que ya ñu indi lait à l'école yaa ñu indi santé à l'école pavage bi yaa ñu ko indil aujourd'hui aménagement Dakar yaa ñu ko indil santé à l'école yow yaa ñu ko indil financement yi yow yaa ñu ko indil defaraat dakaar ak bon gouvernance yaa ñu ko indil kon kat xalifaa ñu doy dañ lay falaat Dakar waa yooyu bi gars yi complot ni ko kët xalifa moo jël seen xaalis denc ko ca kasam ñoo àndaan massivement sénégalais ni xalifa mii ngeen taxal kat moo ñu doy fal ko député te am na ñu yaakaar ni sénégalais yooyu ñooy mobiliser waat fal ko mu nekk président de la république du Sénégal parce que Sénégal def ko soxla parce que Sénégal gi ñu toll tey feebaru mag la yore foo muy metti Fait koy mettre la santé est malade l'école agonise aujourd'hui foo laal ma ngay l'économie sénégalaise est à terre l'éducation n'en parlons pas la malgouvernance est érigée en règle aujourd'hui l'arrogance des gens qui nous dirigent mais kenn xamul lu nous nulool donc Sénégal dañu soxla ku ñëw defaraat jikko yi defaraat réew mi mais dindi fi kumba nday am nday ak kumba amul nday justice instrumentalisée dañ ko fi y a jëlee yow mi jukk jëkk gën yeewoo fa ak ki Euh, almadi Guèye papaam am xaalis yéen a war a am les mêmes droits état daf leen war a teg dans les mêmes condition ngeen mën a réussir mais du yoon que ni ki jëkk ki jëkk fële ca jàmm gën wala dëkk yëmbal tey bu juddoo ñu ni ka dëkk almadi papaam nekk ci nguur gi day am chance jiitu ko fu ñu koy teg donc loolu inégalité boobu dañ ko war a dindi ñi nga xam ne barki démb boo njaay fii lañ doon toogandoog ñun di naan café ñenn ñu leen di jox paas tey ñoo fi tabax ay immeuble yor ay milliards fan lañ ko jëlee mais donc Sénégal damay wax de bilan c'est parce que le comportement des dirigeants de l'époque la Sénégal est fustigé c'est parce qu'on avait l'impression qu'il voulait nous imposer son fils mais tu lan la un seul homme maire président AMS directeur CDC euh, président des élus locaux euh, administrateur de société mais à la limite moi il est mooy le jeune frère au président donc pratique yoy lañu bëgg jëlé ko fi ngir tabax Sénégal gu bees Sénégal gi ñu bëgg Sénégal go xamni ñëpp ñoo fi yem droit Sénégal bo xamni égalité des chances mo fi am loolu lañu bëgg muy projet bi nga xam ne Khalifa Sall bëgg na proposer Sénégalais waaw mu nekk projet bu am solo ñu leen di ñaanal rek yalla na ci yalla def ndam. Mm-hmm. ndax. Euh, euh, développement au Sénégal moom ñëpp ñoo ko ñaan fu mu mm. mënti jógee baax na mais na Sénégal développé mm. loolu mooy li ñu ñor mm. alors ci gàttal tey ba bu ñuy résumé ci sa carrière politique lan moo la ci gën a naqari lan moo ma ci gën a naqari dina jafe wax mais xanaa xëy ci politique ànd ak nit xeexal ko duggal ko fu ne taxaw ci Sénégal yëpp mu xëy ci bëccëgu ndara kàmb ci réew mi sosal la sos bu kenn mënta dañ ci dëkk bi bañuñu ko ñu sosal la parce que li ñu amal solo rek mooy boo nu sosalee Sénégal xam ni amul mais parti socialiste dañ ci daj lu ne xeex ñu xëy jël ñu comme des simples ay voyous sànni la du kaso ba moo ñu metti déedéet mais sos gi ñu sos ci Sénégalais yi bu dee am na leneen lu ma gën a metti mooy bis bi xalifa Sall du gërëbës jàpp naa ni suma politique amaguma bis bu ma gën a mettee noonu

gëna joxé wu gëna taxaw mais aussi euh, gëna jappalé ki nga xamantene moy euh, sa papa comme ni nga ko waxee monsieur Khalifa Sall. waaw nga permettre ma rek ma ma ma ma saluer bu baax les détenus yi nga xam ñoo rebeus et di leen ñaanal yàlla na leen fa yàlla génne parce que damay faral di wax ni ñun defaluñ yàlla lum ñu génnee ñoom defuñ defuñu lu lum leen fa bayé waye ñu war leen bàyyi xel parce que bari na fa ño xamni tay japp jàpp ni bu day yoon kese la amatuñ fa place bari na fa ñoo xam ne tey ay at ña nga tëdd rëbës di xaar seen jugement donc li ñu war a que aujourd'hui boo jàppee nit yóbbu ko ca kaso accélérel nga def enquête mais Sénégal mbaalo dañ lay takal, denc la ca kaso pare soog a def enquête alors que c'est le contraire on devait faire une enquête ba am lu wóor tëj la mais da nga fay gis ay doomu aadama yoo xam ne ñii ñaari at ñii ñetti at ki ci gën marqué daje nañ fa at la def kaso jabaram bàyyi ko ay mbokkam bàyyi ko mu xëy taxaw ñu ne ko defoo dara libéré ko mais kooku yàq nañu àddunaam donc procureur yi mandat de dépôt ñoom comme ndox muy ndox mu sedd lañ ko def da ngay ñëw rek ñu dóor la mandat de dépôt te kaso nag du caaxaan ñu ngi tas ay kër ñu ngi tas ay sëy ñu ngi tas ay famille ci loo xam ne teguñu ko fenn donc nañ leen di xalaat bu baax a baax baax nu ma ko dundee nag dama ni eh, c'est avec philosophie xam nga li gën a neex ci àdduna ñu jiiñ la loo xam ne xam nga ni en âme et conscience defoo ko

te bu app ba joté dina jeex parce que dañu xey ni ñu da ngay na ray nit waye ko ray nit xana nag du du ay souf ak yoy kessé <laughs> dañu xey ñu ni da ngeen ñëw bëggoon da ngeen bëgg yaq mais la mom dañ ko yaq mm-hmm. donc dañ ko dund avec philosophie mm-hmm. gëm yalla mm-hmm. mu nekkoon expérience bo xamni yalla mo tudon ci sunu aduna rek dinañ fa jaar jaar nañ fa bañu génné pourquoi engagement bi yokku parce que Sénégal dañu tam ni politicien bo bëgg a noppalu ko kasso Nous gis en général semaine je dis non suñu engagement nous devons a gën parce que y na des fa Il na a des fa war nañ combattre nekkal ci biti ñi nga qu'ils ne un jàpp nous réussir cette mission ñu ni buñ ca dañuy mais nous devons engagement le Sénégal parce que le Sénégal vaut tous les sacrifices. le Sénégal vaut tous les sacrifices donc euh, comme ni ngeen ko gisee mu nek un jeune vraiment bon à en tout cas il a sa place de passer ses principes de passer ses valeurs mm-hmm. dans l'arène politique du Sénégal ndax beaucoup deglo da ngay xamné ne ki ngay déglu c'est un homme de principes et de valeurs. donc tay ñu bëggon xam en mm-hmm. résumé bo amone ce message pour xamantene bëgg nga ko euh, partager mm-hmm. tay lan lay doon message pour xamantene bëgg nga ko partager bëgg nga Sénégal yëpp bay ci xel c'est de dire à la jeunesse du Sénégal d'être debout de se mobiliser. Quelle que soit l'appartenance, quel que soit le cadre, mais on se doit d'être engagé. Parce que ce pays est le nôtre. Ce pays nous a tout donné. On n'a pas le droit de rester les, croix, les bras croisés, de bailler nous yakal Nous nous engagé parce que Sénégal le Sénégal. Sénégal c'est Paris c'est Dubaï amuñu lu Sénégal. Donc nous sommes ngir Sénégal. la famille Khalifis d'être debout, de se battre. La victoire est très proche. Kompolo bi yàgg na metti na mais la victoire elle est très proche Khalifa Ababakar Sall ñu avons wax na jàpp incha allah daañu ànd ak moom xeex ba yóbbu ko palais de la république. incha allah dinañu ànd ak pour xeex ba yóbbu ko palais mooy seen bëgg-bëgg. ñoom ñi nga xamante ne ñooy ànd ak monsieur Khalifa Abba Sall. Mm. alors nous euh, gis vraiment vraiment. Euh, euh, mu ne émission la boo xamante fait dañ koy def souvent tey ñu ngi woon ci Grand donc euh, demain wala après demain nous continuer dans la même lancée pour essayer de indi ay nit éclaircissement politique mais mën nañ leen des messages forts ndax la politique c'est l'art de bâtir la cité mais la politique c'est montrer la voie aux jeunes aux leaders et aux citoyens de notre cher Sénégal comme ni mu ko les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres

Euh, N'est qu'un fils de Khalifa N'est que le dirigeant euh, mouvement des jeunes pionniers mais aussi la jeunesse euh, socialiste de de et de Dakar je pense c'est ça donc monsieur Samb C'est lay cas de Goumoudjou de gu mujj nga émission et puis nous joxe dig daje ak suñu ay internet d'ici peu de temps après Inch'Allah oui d'abord c'est de t'encourager et gis nous liggéey bi. Eh, les jeunes engagé cadre Sénégal et Sénégal dañuy que ni rek handicap la lañ koy opportunité parce que daf plus de courage donc c'est ce que mais di lancer un message le juge qui a le dossier du président Khalifa Demba je lui lance un message en lui disant s'il veut que demain nous dans les écoles s'il veut entrer dans l'histoire comme Kébambé, qu'il se départisse des considérations politiciennes et des orientations du palais mais qu'il dise le droit et rien que le droit et ce droit ce n'est pas une exécution des ordres c'est pas l'exécution des ordres mais c'est une application vigoureuse des textes et lois en vigueur donc loolu mon message bu koy lancer mais di la féliciter di la encourager avec sa équipe bi di ñaan yalla na len yalla jàppale ba mu ci chaîne yi ñu gëna dégg ci Sénégal mais di beral loxo les camarades yi nga xamni ils sont venus et tok participer ak ñun émission bi parce que ñun ni la c'est c'est une famille on aurait souhaité ñep ñëw mais comme dafa gàtt rek ñu xol ñi gëna djégé ñom ñep ñëpp ñu ngi len di remercier di remercier bu baax aussi la famille parce que bu ñu ñemee ñoom la tamit parce que xeex politique dafa xawa jafé mais quand tu as une famille derrière qui est soudée qui t'encourage eh, il faut que tu les remercier bu mais di rendre un vibrant hommage à notre grand frère notre ami Barthélemy Diaz Bart, la ko yóbbu fële xeex bi la rek te la ko fa yóbbu nañu fa ñun eh, mais mi mais il y a des milliers de Bart d'or et nous sommes prêts à mener ce combat di grand tiens bon la victoire elle est très proche. la victoire elle est très proche en tout cas depuis que ngi ñuy dégg mu koy te xam naa li muy wax am na fu fu mu ko teg donc euh, euh très cher ami internaute de El Vision Médias ma leen di sant lu dul remercier euh, ñi nga xamante ne ñoom laa àndal muy euh, elhage ak ki nga xamante ne mooy suñu technicien bi dine caméraman yi comme ni ko gars di waxee man mooy sama dine ndax moom laa am moom lay àndal donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent parce que plateforme la boo xamante ne on est suivi avec plus de 17 000 jeunes euh, donc yombul y nga ci banlieue euh, moins de deux ans nga am 17000 jeunes yo xamantene ñu ngi abonné 000 personnes sax la ndax mag ak xalé ndaw ñepp ci ñu lay suivre souvent donc yeen suñu succès yeen nako waral vous êtes notre source d'énergie, vous êtes notre force et vous êtes notre euh, fierté merci à vous de nañ leen et puis di leen jox dig une ci benen émission inshallah